mi nga xam ni président daf ko delloowaat muy Abdou Latif Coulibaly président démb bi muy wax ak askan bi dafa ne dafa soxla gouvernement boo xam ne ci saasa dafay jublu ci soxla Sénégal yi lu mel ni njëg yi wala lu mel ni mbënd bi lu mel ni liggéeyu xale yi yu mel noonu looloo tax mu jël ñoo xamante ni ñi ëpp ci ñoom mën nañoo def seen passation de service suba mbaa ñu xëy suba commencé liggéey benn ñu ngi woon ci gouvernement bi donc am nañ expérience gouvernement ñaar ñu ngi woon ci position yoo xam ne da leen di may bu ñu duggee ci gouvernement bu ñu defee passation de service duñu lambatu ndax loolu mënuta ànd ak di président bëggee liggéey bi muy liggéey boo xam ne dañ koy baral liggéey boo xam ne dañuy nekk sur le terrain mais liggéey boo xam ne dañ koy teg ci yoon parce que lii ñuy wax yépp dafa war a tege ci yoon mu tànn ay góor ak ay jigéen ñoo xam ne am nañ expérience ay xale am na ci dinañ toll ci juróom-ñett ay jigéen am na ci dinañ toll aussi ci juróom-ñett mais li ñu gis mooy jox nañ leen ci aussi cër yu am doole ndax amoon ci ministre des affaires étrangères mais am nañu ministre de l'économie boo xam ne moom mooy toppatoo koom-koomu réew mi di doon koo xamante ni doomu Sénégal la di ku ku ku jigéen loolu mooy li nga xam ni président def na ko incha passation de service yi dina commencer altine ndax niñ koy waxee ci école yi moy li président bëgg moy ubbi tey jàngi tey gouvernement bi it en début de semaine passation de services yi nañ commencé décret yi nga xamni ñom ñoy sédélé répartir fon euh, répartir services yi paréna inshallah ci bir semaine bi ministre yépp dinañu opérationnel comme ça bu président le conseil des ministres bu njëkk bi ba gën ñoo leeral ni nga xam ne noonu la bëgg liggéey bi doxee semaine ba ca topp gouvernement bi jublu ci préoccupation yi nga xam ni moom la sénégalais yi am balaa may fàtte am na benn ministère boo xam ni ñu ngi ko def ci ministère de l'hydraulique et assainissement boo xam ni ministre délégué la tuddewuñ ko nag ministre délégué dañ ko jox compétence su ministre mu nekk ci biir di toppatoo mbënd bi di ko def prévention

amoon na fi démb barki démb ci walu jeunesse gis ngeen aussi ministère bobu dañ ko gëna dolel doli ci entrepreneuriat cela me semble être extrêmement important ndax gis ngeen outil yu bari yi nga xamni président def nako yu bari bari inshallah ci décret de répartition président dina xoolaat loolu yëpp pour ñu mëna fexé ba outil yoy nga xamni def nako té liko yittel moy mu jarign askan bi que outil yoy yëpp mën a am une efficacité optimal loolu mooy li nga xam ni bëggoon naa ko fi euh, wax incha allah ci fan yii di ñëw dinañu gën a leeral rep li nga xam ni président sas nañu ko incha allah ndax duñ ci réeroog yéen loolu aussi président sant nañu ko ndax bëgg na ñoom am un dialogue permanent ak acteurs yi ndax li nga xam ni mu ngi koy liggéey ci réew mi ak yéene yi nga xam ne am na ko ci réew mi bëgg na saa su nekk ñu koy waxtaan ak askan bi yépp di leen ko won di déglu seen xalaat di xool la nga xam ni mooy président sant nañu ko ndax ñu ngi koy defee na mu ko santaane ak ni mu ko bëggee na mu ko santaane ni mu ko bëggee mooy na ko askan wi bëggee loolu rek mooy yitteem loolu nag incha allah premier ministre bi dina ci taxaw ndax bokk na ci li nga xam ni président sas na ko je vous remercie Oui,